bi mu sëppoo buur ñépp foog ni daf koy jox loxo mu sakk nopp bi akum talaata réll xëy ba am na ñëpp dar seen gémmiñ dag yi tiit ñii di rapperat séddaleem bi jabar yi ànduñu ci buur laaj nan la alim séddalee fukki ëmb yi mu ko jox ñiitu dag yene séddale bu doy waar buur féetale na aawo bi ñeenti ëmb ñaareel bi ñaar ñetteel bi ñett ñeenteel bi benn kese jafe na buur ak boroom xam-xam déggoo buur bëgg-bëgg ma ko ñor boroom xam-xam xel mu sell buur doole la yaakaar boroom xam-xam dëgg su Kocc Barma Faal ne buur du mbokk am na ñu ci yokk ne buur ak boroom xam-xam ñi ngi demee ni ñaari béjjan dañuy lang waaye duñu laale ndax boroom xam-xam du far amul péete buur su sañoon li ko neex neex ñëpp lu mu wax la ñëpp di wax fu mu xool ñëpp xool fa boroom xam-xam moom du wax lu dul lu mu gëm du gëstu lu dul lu amal njariñ askan wi moo tax buur du jóg ci di ko nattu dina ko xoqtal su dee buqat dootu sa xët dina ko xëllamtoo alal su gërewul doyluwul jaay boppam boroom xam-xam bu maandu wuutewul lu bari ak dof lu ñëpp ragal a wax dof wax ko te du daw lu kenn ñemewul a def dof def ko taxaw jamono bu nit tëlee dof jëf jamono bu pexem nit jeexee pexem dof des lenn ci nettali bii firnde ci buur daawoolu alimu dëkk bi wala boroom xam-xam bi ci pénc mi mbooloo maa ngi ni trim buur ne alim boroom xam-xam bu rëy bi benn laaj rekk laa am bu la ñeel ndax di nga ma ci mën a dindi kumpa alim ne ko buur kenn du rëy fii ba dab la njool nga ba kenn mënu laa tëb jéggi gàtt nga ba kenn mënu laa barunglu xam-xam su ko doole yiirul du saaw su ko alal dimbaliwul mu tumranke buur dama lay sant ndax yaa ngi yiir di jàppale boroom xam-xam yi te joxoñoo leen fu ñuy xool gént nag balaa moo neex a firi boroom tudd ko mu raay sikkim bi yëngal bopp alim li lay laaj moo di nit su sottee ndox ci safara ci susus ji ñuy dégg safara wee ko def wala ndox mi mbooloo mi ne selaw dag yi di ree alim ni dënn jaaxle gët yi war wàllu ba daj xar kanamu dof alim boole jaaxle ak tiit bi muy wuy buur yëgul ni dof topp na ko dof mbindeefu yàlla la mu ñëpp ñàkkal solo gannaaw alim mi ko dëkkoo buur tu laaj bu yéeme bi dof yër xar kanamu alim gis mu lëndam lool moo xam ne alim nekk na ci jafe-jafe dag yaa ngay xàqataay naa alim mi sa xam-xam bi rëy lépp mënoo tontu ci laaju buur bii alim mel ni ku lu xam na ni buur da nattu ngir tuutal ko ci biir mbooloo mi buur wujju la def jàppe pànk kuy boroom xam-xam te làquwoo ci gannaawam wujj dañu koy xeex pànk dañu koy wàññi dof bi mu gisee ni waayam amul pexe dafa riire fi mu toogoon waaxu wuti buur nit ñi naa moo dof fu mu jëm moo dof lu mu nar bi mu sëppoo buur ñépp foog ni daf koy jox loxo mu sakk nopp bi akum talaata réll xéej musiba am na ñépp dar seen gémmiñ dag yi tiit ñii di rappi rappi ñii daw tatafu dof buur ni tekk ànd dal ne dof li nga def noo ko ñemee dof ne buur pexe su jeexee ragal jeex ndax bisu dee du bisu tudd lu tax nga def li nga def da nga laaj alim ma bëgg laa laaj man itam looy laaj tell ji nga dégg bi sama loxo ubbee sa nopp sama loxo moo ko def wala sa nopp buur ni dënn dof ne ko soo tontoo loolu alim dina la tontu ci sa laaj buur toogaat bu baax ne dag yi bàyyi leen ko dag yi ne dof yalax alim nooy yi ca kaw ne ci xelam su buur bëggee baa doole ñàkk waaye xam-xam yokkooti na ndeketam dofkat baax na ci kër gannaaw ba loola jàllee ca ëllëg sa buur woolooti alim ca pénc ma bi alim wuy see buur ne ko boroom xam-xam bu rëy bi dama yor fukki ëmb yu may yéene sa ñeenti jongoma yi ca sa kër bëgg jaarale ko ci say yoxo ngir seddale bi jaar yoon ba kenn ci ñoom du mer alim ne ko buur dégg naa li nga wax su ma demee dinaa jox ku nekk ci ñoom li muy yelloo cër moom du rëy du tuut boroom lay tollool buur xool njiitu dag yi koo ko wax ca kaw ne buur nee na na teraanga yi yemb ci kanamam fukki dag dikk ku nekk yenu ëmb boor ne ëmb yëpp kër alim lañ jëm ñiitu dag yi alim ak dag yi yenu jiitlee bu ñu yeggee dag yi nee ko dellu kër buur seen njiit des fa ngir fekke séddale bi alim woo ñeenti soxnaam yi ne leen buur fi yónnee fukki ëmb yii nee na ma séddale leen ko ci ni mu waree jabar yi àndandoo ne ñu ngi lay déglu ne alim tànn ñeenti ëmbu féetale faatu mi aawo bi tànn ñetti ëmbu féetale bintu mi ñetteel bi jël ñaari ëmb féetale ñaareel bi di aysatu jël benn ëmb bi des jox xuri mi ñeenteel bi fukki am ñett di jàmbatee ke amul lu jël benn jëru lalimaale xuri ni law tàccu ñett ñett alim ne ko su ma jëlee ëmb bii lu panden raxas maa ko naan aysatu ak alim ne ko say ñaari ëmb ngoog yóbbul foo xam bint sukk ne nijaay doo wax walla nga def ma am lu ma ci bëgg mbaa bañ waaye nag sa séddale bii jaaxal na ma ndax séddale li ma ci xam ci saa xam-xam su gàtt yamale faatu moom it sukk waaye yëgg suuf ne nijaay bala maa wax dara damay yeesal sama njëbbal ci yow loo wax ak loo def lu nekk ànd naa ca sa séddale bi dal na sama xel ndax ku xam la ca biir lépp xam ni yoon nga topp te jàdduloo ngir suuxat sa nafsu su ma sañoon nag nga dind ci li nga ma féetale jox sama rakk yi ndax bëgguma kenn ci ñoom di la mere alim boole leen tontu ñoom ñépp dégg naa bu baax li ku nekk ci yéen wax buur daf ma sas fukki ëmb yi daf ne naa ko séddalee nu jaar yoon loolu laa def ñett soxna yi ne ko soo toppoon yoon kay def lu jub yemale cër yi sa bëgg-bëgg dong nga topp ba coow lu jàppee kaw jàpp suuf njiitu dag yi ne alim nanu dellu nun ñëpp ca buur moom su seddalee kenn du ca teg baat alim ni loolu sax ma gënal buur bi mu gisee njiitu dag yi alim ak ñeent soxna yi jiitle buur dafa muuñ ba bañ yi feeñ ne yaakaar naa alim juboowul ak jabar yi njiitu dat yi buur li nga xalaat moo am de alim séddaleem bi jabar yi ànduñu ci buur laaj nan la alim séddalee fukki ëmb yi mu ko jox njiitu dat yene séddale bu doy waar buur féetale na aawo bi ñeenti ëmb ñaareel bi ñaar ñetteel bi ñett ñeenteel bi benn kese buur ni jàkk alim ne ko boroom xam-xam bu rëy bi ndax mën ngaa wax mbooloo mi ci li nga sukkandiku ba séddale su neex buur lu waral nga féetale awa bi ñeenti ëmb alim ne buur faatu baax na ci boppam baax na ci man baax na ci bokk ci boppam te xatalul samay bokk buur ne ko juboo naa ak yow ci cëru faatu jàllal ci ñaareel ay satu ñaar laa ko sedd ndax baax na ci boppam baax na ci man mi koy denc sëyam xajalu ci kenn buur ne ko xel nangu na li ko sédd bintu ñetti ëmb laa ko jox ndax moom bëgg na boppam bëgg na ma yaatal na mbokki boppam ba tey juboo naa ak yow borom benn cër bee des kon xori moom daa ràngoo taaram di niitu ba yëgul kudul boppam faalewul jëkkër yaatalul mbokk toppatoowul goro moo tax ma jox ko benn ëmb dongu buur xaddami ko bu baax ngir kàddu yi mu fas yéenee dénk mbooloo mi leer mu ne tekk ab diir ba kenn déggatul sax weñ wuy naaw mu soog ne xam leen ni ànd naa ci ni arim séddalee séddale yamale la ci ñi ëpp ci nun natt waaye su ñëpp yemee cër am ñu gedd jigéen ñi ci mbooloo mi maa xam ngeen ni séddale bi alim def yéen lay jàngal ni ngeen war a toogee ci seeni néegu sëy roy leen faatu yaatal leen seeni xol ak seeni kër bàyyi leen di xatal seen sëy yaatal leen ko ngir ñi ci bokk ñëpp xacca wërsëg kenn du ko wër mooy wër borom xol bu yaatu mu gane ko su ma juumul noonu nga ko fi waxe woon alim alim ne juumuloo buur sunu yaatalee xol yi yaatal kër yi sunuy wërsëg yaatu ba jaaxal na te jigéen juy sëy yaatu dafa bokk ci jikko yi ko mag ñi soxe buur ne foofu war naa leer alim yan jikko la mag ña di soxe jigéen su dee sëy yi sox sax ci maq doom la jekk alim ne sox dañoo foog ni ci fetal rekk la baax moo ne jigéen ji sëyi balaa war baayam ak mag ñi dañu koy sox li ko waral mooy sëy xare la kuy dem xare nag da ngay gànnaayu jikko ju rafet li jigéen ji sëyi di gànnaayoo suñu ko muuree mu war a fanaani kër dañu koy dénki jikko yu mu yóbbaale muñ kersa teey woyof yaatu téye tànkam ak làmmiñam te dégg ndigal jikko yooyu jigéen ju leen làmboo da ngay weesu jabar doon soxna na dinga not sa jëkkër notaale say goro te coow du jib